magal waaw borom baatin laa borom baatin laa wóor na ma ne barke Cheikh Ahmadou Bamba Macky Sall moo gëj a réew mi ndax tariqatul Moustapha xayril bariyaat tariqa yëpp ci yont bi leen jóge te ñëpp ko bëgg seenub sët la bokkut ak màggati naa fekk yi fi nekk ak noonu yii fi xam ne ay noon yu bon lan iñaare ko li yàlla def maanaam opposant yi danoo iñaam danoo xeeb Macky Sall te yàlla lu mu xeebut boo koy xeeb yàlla ngay digale man na laa waatat ci Sëriñ Tuubaa bi ma yaakaar Macky Sall moo gëñ réew mi Balla Gaye itam mooy gëj a Modou Lo maa ngi ko waxee fii di taalibe Serigne Touba di sëtub Serigne Touba dara du ko dindi asalaamaaleykum